baa Bakura bokk na si dëkk yi sëñ Touba sëñ lu woon mag mu baax ak ay njabootam sax si dëkk bii digganteem nag ak Touba bu yemee si juróomi kilomètre ca la yem waaye mën nañu jàpp ni mel na leen daal xaw na leen fàtte donte ñoo ngi jokk si mairie bu Touba waaye gisuñu seen bopp daal si gestion bi ndax jàpp nañu ni kat ñu ngi contribuer si ressources yi waaye ba léegi daal dëkk bi am na ay jafe-jafe yu tàkku bu ñu sukkandikoo si Baba Gaye ak Assane doon ay doom ak sët si kër gi dëkk bi na nii ci turu kilifa yi fi nekk yëpp laa koy wax ñun boo ko dee daa mel ni bokkuñ ci commune bu Touba ndax Bakura amut lenn loo xam ne mi ngi génnee ci commune bi di ñëw fii amut benn maire bu fi mos a jaar wala lenn taxaw fii te xool jafe-jafe dëkk bi wala mu dugal fi loxoom mbooleem loo fi gis mu taxaw taalibe yi ñoo ko fi def la sëñ Alak Baar doon wax naan fii loo fi gis taalibe yi ko fi indi loola la sëñ bi di waxaat fii ci dëkk bi kon mu mel ni kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Touba ñànk suñu moomeel muy monsieur le maire ak ñim àndat ñun waa Bakour dey am nañ loo xam ne danañ ko teg seen loxo mooy lépp lu ñu warlantoo ak population bi ak lépp loo xam ne warlantoo nañ ko ak dëkk bi fii si Bakour gisuñ seen bopp tey gis seen bopp ëllëg. waaye gis ngeen ne fi gën a jege Touba muy Bakoura xam ne 2 kilomètres moo dox digganteem ak tali bi. Eh, jafe-jafe boobu ñu ci wax bëgg nañ yoon amu fi bëgg nañ case de santé amagu fi forage bi fi nekk doléance yooyu yàgg nañ koo jibal ci kanam maire xamal ko ne ko dëkk bi ab groupe mooy taal forage bi ci ay te mi ngi alimenté lu mat fukki dëkk ak benn ab groupe boo xamante ne buñ ko jëndee balaa am 6 mois panne parce que ci tàngoor bi muy daw ku nekk xam na ne attanul li war a génn ci ndox ci forage boobu loolu nag su fekkonte ne courant bi àgg na fi dana doon lu am solo loo xamante ne dana tax suñu soxlaa ndox du am jafe-jafe mais saa bu forage bi paanee dana fi diire lu war a mat un mois wala deux mois loolu nag xam na ni population yi ci jafe-jafe la ñu nekk beneen bi ci des bu ñu faju dugg ci ay sareet wala ay taxi di dem Touba wala ci yeneen dëkk ba Kër Kàbb di fa fajo te loolu bu fekkonte ne taxawaay ba ci war a am am na kon loolu weesu nañ kon loolu chaque fois ñu dajee ak monsieur le maire wala ñu dajee benn autorité lii mooy doléance bi nga xam ne moom la Bakkour am ak Guy Mbaam Njàllaxaar ak Mbayeen bin at mu nañu bind ko bind nañ ko ci courant bind nañ ko ci poste de santé bind nañ ko ci yoon benn yoon la fi a ñëw fii maire benn yoon la fi mës tànkam bi ak ak lakk amee fii ci njallaxaar Njalaxaar fii la bokk booba góorgóorlu na ba ñëw fi ñu ngi ko ci sant nag waaye booba la fi mës teg tànkam booba la mujj te ba mu fi dikkee doléance yi fi gis gis na ko ndax moom wax ci sama ci làmmiñam ma dégg ci sama nopp mu ne ndeke ndeke jafe-jafe yu mel ni am na ci biir dëkk bi ma ne ko jafe-jafe yi la ñuy dund parce que suuf ngay jógee fee euh, ca taliba ba Njalaxaar mi ngi war toll ci six kilomètres parce que sëñ bi si sëñ bi mu koy sanc doon def 2 kilomètres mu sanc yeneen 2 kilomètres mu sanc yeneen 2 kilomètres mu sanc ba mbayeen muy 8 kilomètres te foofu yëpp benn comme li ma damay désuwaat ci dama waxoon rek benn forage bi moo leen alimenter te gaz moo leen jox ndox te gasoil moo koy alimenté. bi ñuy amal seen journée de collecte de fonds. bi tax ñu mën a amal seen ay propre infrastructure tàmbale woon ko ak benn mbaar bu yaatu pour ay événement te nag sax taalibe yi tas si àdduna ak si biir dëkk bi ak Sénégal ak biir Touba ñoom ñoo koy def chaque année. lii doon un bu nu jàpp ni kat. dina tax ñu mën a jël en charge lépp luy seen préoccupation waaye nag des na case de santé tali ay forage yu fonctionnel ak it électricité loolee nag gis nañu ni kat bu ñu amoon la possibilité dinañ ko defal seen bopp te sax jàpp nañu ni population bi nekk si mboolem village yi satellite yi nekk si biir Bakura rek war naa tax état ak maire yi def ay jéego yu mag tey jii nag ñoom sa di jóg nañu kat pour ñu mën leen bàyyi xel lépp luy infrastructure ñu indi leen ko. loolu nag defar nañ ci lu am solo muy fii ñu taxaw tey di mbaaram gi. soo gisee nag association bi gën a taxaw ci mbaar mi mooy eh, mbaaram gàmm gi da gàmm gi dafa am taarix comme ni ko ki fi jaar léegi waxee Sëñ Baaba Géey eh, gàmm gi dafa yàgg loo xam ne am na téeméeri at ak nangam ñu di ko organiser ci dëkk bi jaadu na mu am foo xamante ne buñ koy organiser mu nekk ci condition yu baax loolu moo tax biñ tàmbalee rek ñu ne nañ taxawal mbaar mi liggéey ko ba mu mucc ayib buñ ci paree nag leneen loo xam ne dëkk bi soxla na ko ci domaine bu mën a doon nag euh, danañ ci taxaw ba pare di ci tàllal loxo état état bu buñ ko waxee maire préfet euh, euh, sous-préfet gouverneur ak autorité locale yi kenn ku ci ne gën a gëstu bàkk gën fee ñëw gën a taxaw waa dëkk bi parce que population bi fi nekk dafa am solo ndax da ngay dugg Bakura def deux kilomètres dem Guy Mbaam def deux kilomètres dem Jallaxaar defaat deux kilomètres dem Mbayeen dëkk yooyu nag eh, genn kilifa gi moo ko moo ko saytu. bis bi nag bu àggsee yi njaboot gi yëpp ñoo ngi daje si penc mi di amal nag ay collecte de fonds pour mën a taxawal seen ay infrastructure lu si mel ni mbaar mi nga xamante ni biñ ko naalee yàgg na yàggul waaye daal gis nañu ni mi ngi def ay jéego yu am solo édition wu 2023 bii nag famille bi li ñu collecté si ay fonds mën na nañu jàpp ni raw na loolu li nu amoon édition bale passé di nag sàkku si état bi mu gën leen nag bàyyi xel ngir population bi waaye tamit kilifa yi si dëkk bii.